di nuyu njabootu lislaam gi fi teew di njabootu Serigne Touba di njabootu toog muy sëriñ Cheikh Fall moom Cheikh Modou Moustapha di Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng di jëwriñu Serigne Amdi Fall di jëwriñu Cheikh Ibra Fall jii. moo ko def muy jëwriñam. moo mu jotal ko nag ba ñëpp dégg ko. waaye ci turu nag seen jëwriñ ji nga xam ne. na ko turandoo ma waxee woon. na ko turandoo ñoo ngi ñaan suñu borom mu dolli ñu ngërëmam ya lam jaayante woon. lam jaayante woon. daa wax ni buñ ko ko nangulee. defaat na ko addiya. defaat na ko addiya. loolu kat Serigne Fallou Mbacke waxoon na ko Serigne Touba. moom la waxante woon ak Serigne Touba. muy kàddu yoo xam ni. lam koy wax wax leen koy wax wax ci ab rajo. ci aw làmmiñam la ko wax ñëpp dégg ci aw làmmiñam nag la ko waxe woon ñëpp dégg ko. ñu bari ne nee ñu bari fi ne jot jot nañ ci kàddu googu. jëwriñ jiiri sëriñ Fallu itam. jëwriñ jiiri sëriñ Fallu itam. la turandoo ma defoon rek. defoon moom rek la def. li ñuy tugg digganteem ak sëriñ bi. loolu la jaay. loole la jaay. jënde ko li sëriñ bi amee. ko li sëriñ bi amee. muy ak taalibe rek. mooy jëwriñu kër yi nag. mooy kër yi nag. doone jëwriñu sëriñ Seex Njaaye mbeng mii. kër gu mu dem moo fi sëriñ Fallou dem moo fa mag. taawu baay ci kër baay nag. taawu baay ci kër baay nag. lu waay def ci kër ga. moom nga ko defal kon nag ci turu jëwriñam ji di sëriñ Fallilu mu yóbbaale ci nag turu kilifaam yépp nag nee na mi ngi nuyoo ci seeni tur ak turu jëwriñ ji toog di joxe ay cant di joxe ay ngërëm ay ngërëm ci taxawaay bii ngeen taxaw ci liggéey bi nga xam ni amuñu lu dul moom bari na fu liggéey bi àgg foo xam ni bari na fu liggéey bi ndam lañu ca toppee ndam ca toppee ñoom ñi nga xam ni yéen ñi nga xam ni yéen ñi nga xam ni yéen a jaayante yéen ak sëriñ bi ci liggéey bii ci liggéey bii ba mu agsi fii nee ndam lu am rek ci yéen la ko suñu borom doxale ndax day am tur woo xam ni buñ ñu ko dee wooyee ñun ñu ne ci liggéey bi wuy si woote bi? yéen nañu ko may kon nag cant yi ak ngërëm yi yéen rek la ñeel kàddu yi bi bu jugee ni nuyu mi gërëm di leen sant di leen gërëm ñi jëfe lam digle ña nga xam ne ñoo jëfe sëriñ bi digle mu ak bëggam mu di ak bëggam ñoo moom cant ya ñooña ñoo moom cant ya ñoom moom it ya ñi kenn ku ne mu jox ji muy ja di Muhammadul Muntaxa moo ko tegoon ci loxol jëwriñu Cheikh Ibra Fall ja Serigne Cheikh Jëmb Fall ñoo ngi ñaan sa borom mu dolli ay ngërëmam moom la soob mu defaat nii rek defewaat nii loolu nag la àdduna baaxoo fii moom des fii liggéeyee waaye fële nag la ñuy añee te àdduna moom nee teraanga joo fi mën a am. lu mu rëy rëy. des na. sunu borom moom. teraanga jëmi xaroo. ñamu gërëm. xajul ci àdduna. nee na noonu la gàcceeg àdduna mel. toroxtaange jëm leen di tëroo. ñooñee. ñooñee. ñuy tabbi sawara. loolu xajul ci àdduna foofa rek la xaj kon nag ñu baax ñi ku ci liggéey bu àgg fi mu àgg ci coobareem faw mu sopp sab liggéey rek loolu kat moo waral jotaay bi amee nii ndekon bi kon bi ñu joxe kàddu yi day am feneen fu mu jaar muy fa moom moomee waaye nag yoon wi day amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am lu agsi lu nekk saye boo ñu dara ci sunuy xel te xam ni la ca borom bëgg rek ak ñii nga xam ne ñoo bokk ak moom ak bëgg faw mu amee ko lu kawe njortam ndax ki koy def moom kenn kee nee du ci tële mukk kon nag jataay bi du jataay wimiku sëñ bi daa bëgg rek ñu dem taxaw la ca kanam ñu dem taxaw la ca kanam muy bisub sëriñ Tuubaa bii di màggal gi waaye jàllaleel na ko ba ca gàmmu ga itam waaye jàllaleel ko ba ca gàmmu itam ba ca bis ban daan tudde Seex Ibra Faal itam ak mbale mu mujj ma it su jàllee ñu ñëwaat ci liggéey ñu dellu si ñëwaat ci liggéey bi. kon loolu wéer ko rek la. kon loolu wéer ko rek la. dem defali ko leneen. dem defali ko leneen. wala dem taxawul ko leneen. wala dem taxawul waaye du yeewi ko. waaye du yeewi waaye ñu ngi ñaan nag suñu borom. waaye mi ngi ñaan moom suñu waaye mi ngi ñaan suñu borom moom sëriñ bi. dallu gi mu dallu loo. <laughs> dallu gii mu ñu dallu ay xéwal dab ñu nag nee na ci wàll jépp nag aku jàppandal ci ak jàppandal wërsëg wu ànd ak jàmm moom bu ñu sëriñ bi yiwi xol yi du nungu dañuy bëgg rek nekk fi ba faaw ndax leen tàmm ndax li nga xam ni moom lañ tàmm muy saa suñu jógee ngir moom fu ne xéwal fenn fu ne xéwal dina fa bàyyi ko. ndax li nu koy defal. ndax li ñu koy defal. moo tax cawarte gi am ci lool. waaye kon ñoo ngi koy ñaan buñ delloo ca kër ya. diir ba am. diir ba nga xam ni moom lañ fay am. sëñ baa ngi ñaan. xéwal nag nanu bàyyi koo ci juróom benn gox yépp nag. tàbbi ci sunu biir rek. kër yi ndax la ñuy def ca kër yi itam. moom sëriñ bi lañ koy defal. muy liñ doon def fii rek. ni liñ doon def fii. ni liñ doon def fii. noonu noonu la loolee mel. noonee la loolee lépp moom lépp lañ koy defal. alalam la. kon nanu sëriñ bi ñaanal loolu yi. kon ma ñuy ñaanal loolu yi. kon mi ngi ñuy ñaanal loolu yi. loolu mu ñuy ñaanal nag yal na ko suñu borom nangu. ñi suñu kanam itam nee na ñoom ñi ci suñu kanam itam tàmbalee suñu jëwriñ yi tàmbalee ko ci suñu jëwriñ ji ak waajuram wi toog di wasilaam wi di wasilaam wi ja ka def muy jëwriñam seenu seenu bëgg daal ñoo koy ñaan suñu borom ñun murid ñu leen seen gi te ñu leen àggale ñu yéene ñu baax ñëpp ci ñoom. àggale ñu seen yéene ci ñu baax ñi. kon sëñ bi nee na jërë ngeen jëfati. nee na barab bi itam. na ñuy sàmme nag la ci suñu biir gaal ya. na ñuy sàmme nag la ci suñu biir gaal ya. nan sàmmale sëñ barab bi. nan sàmmale sëñ bi noonu yi barab bi. jàppale ñi fi nekk rek. jàppale ñi fi nekk. ku ci ne. jàppale gi mën naa yaatu. jàppale gi mën naa yaatu. xelal leen. xelal leen. dimbali leen. dimbali leen. loo xam ne nekkin wi ne fii. dana gën a jàpp ni ci ñoom. ndax nekkandoo fi ñun ñëpp. ndax nekkandoo fi ñun ñëpp. dadul aada yoon wi. waaye ñii nekk fi waaye ñii nekk nag. ñeneen nekkal leen feneen. ñeneen nekkal leen feneen. loolu aada yoon wi. aada yoon wi la. kon na leen ñëpp ñëpp jàppale. kon leen ñëpp ñëpp bokk jàppale. bàyyi xel barab bi. di bàyyi xel ci barab bi. te di ko déglu itam. te di ko déglu itam. mais yàlla fi jàmm sax nag faww. waaye nag loolu lañ koy mën a waxee. nda borom moo koy sàmm. nda moo koy sàmm. ki sàmm lépp. ba dara ruuru ruuru ci. kookee moomam barab bii. kookee moomam barab bii. moom lañ ko moom loo. moom ko moom loo. ki moom tey ak ëllëg loo gis nag ci yaari kër yooyu la ne kon cërub sëriñ bi la faaw mu sàmmal ko boppam waaye ñu ñaan ko loolu nee jërë ngeen jëfati taxawaay bi daal murit yi sëñ bi nee rafet na li tax mu agsi fii itam ah, di ko sëriñ bi ñaanee des ko cee dollil ñun mu yi ci lee boole ci lee waaye ñëpp nangu ne nag. waaye ñëpp nangu ne nag. nee daal moo gën na woon. nee daal ngeen def moo gën na woon. nee na nii daal ñun murid yi. moo nu dàqal na meloon. mel na ni ubbi na ci fànn yëpp. ndax mel na ni kat ubbi na ci fànn yëpp. te am na ci wet goo xam ne nag. su ndox mi bari woon. su ndox mi bari woon. te te deful ne. te ko ne. am na ci lu mën a ayibal. am na lu mën a ayibal. kon daal nii moom. kon daal nii moom. xalaat yu jub la. xalaat yu jub la. biñ ko waxee sëriñ bi sax rek koy rëccu. biñ ko waxee sëriñ bi sax ñoo koy rëccu. waaw sëñ bi sëñ bi moom da koo def ndam. ndax ñenn ci murid yi danoo dox yàgg ñu ni. ndax ñenn ci murid yi danoo dox ni. loolu kat bu sëñ bi ne woon nangam. bu ñu yëgoon bi sëriñ bi ne nangam. bu ñu yëgoon bi sëriñ bi ne nangam. deesu ci teg dara. deesu ci teg dara. waaye fekk tegu leen ci dara. waaye fekk tegu leen ci dara. maanaam li ngeen teg. maanaam li ngeen ci teg. dafa dëppoo. dafa dëppoo. muy ak bëggam. te loolu bokk na ci li dàq jëfi murit. xalaat loo xam ni. xalaat loo xam ni. kenn digalu la ko. kenn digalu la ko. mu far dëppoo bëggu sëriñ bi. mu far dëppoo ak bëggu sëriñ bi. sëñ bi nee loolu neex na ci murit yi. na waaye daa delloo am na ko ne dem na. waaw xëy si woon na. waaw suñ Mor Talla Fall Ousseynou Laye Fall Ndar. na xëy si woon na. waaye dañoo daa am yitte ju muy doxee ci ci kanam waaye dafa am yitte ju mu woon ca kanam. waaye ñëpp mooy ngi fi rek. waaye ñëppam ñu ngi fi rek. kii di waxit. nee na kii di waxit. ki muy waxal. ki muy waxal. mooy moom mooy ñëpp rek. mooy moom mooy moom mooy ñëpp rek. loolu fàttali ko baax na ci. sëñ Ablaye Fall Ndar waaw ah. yow itam ne gi nga ne ci kanam mbooloo mi sëñ Ablaye Fall Ndar yow itam ne gi nga ne ci kanam mbooloo mi nii de lan ko bëggee nee nii de lañ ko bëggee moom ñëw fa yow rek ñëpp fa ne moom nekkoo fa yow rek ñëpp fa bu ñëpp war bu ñëpp war a taxaw faaw nag faaw kenn ne ci kanam kenn su fa nekkul keneen ne fa su fa néewul keneen ne fa su fa néewul keneen ne fa kon nag nii nga def yow itam baaxee sa sa mag yeeg sa rakk yi. baaxee sa mag yeeg sa rakk yi. taxawal leen ci kanam mbooloo taxawal leen ci kanam mbooloo mi. bu baat bi juyee jaar ci yow. nee bu baat jaar ci yow. ñun ñëpp la gërëm. ñun ñëpp a gërëm. ñoom ñoom ñëpp la gërëm. ñoom ñëpp la gërëm. ndax loolee. ndax loolee. wala loolu lii. wala loolu lii. def def ñëpp. def def. bu ñepp bokku la kon jërëjëf yow tam loolu sarak yi duñ la ci mere loolu sarak yi duñ la ci mere sama ñi duñ la ci mere sama ñi duñ la ci mere waajur yi duñ la ci mere ñepp nga fa taxawal ndax ñepp nga fa taxawal xol mom bu ci kañaan neewul xol mom bu ci kañaan neewul day yéene koy def lu baax lu nekk day yéene koy def lu baax lu nekk ñi may waxal te ñii muy waxal. seeni xol amul kañaan. seeni amul kañaan. mukk mukk. kon ñëpp la yéene. kon ñëpp la yéene. taxawaay boobee. taxawaay boobee. jërëjëfati yow tam. noonu ko jëwriñu Serigne Touba ji waxee. Serigne Mountakha. ni wax naa ko ci yàqul dara. loolu wala du yàq dara. nee loolu la ci jublu moom itam Cheikh Moustapha. nee jërëjëf. nee na xanaa doy na sëkk ñu waajal loolu rek mooy yéewi kun daal di dem yéewi kun de dañuy waajal bis bi ci sunu kanam jataay bi sëñ bi yéene na la Cheikh Moustapha nee Serigne Fallou nee na bi na jataay bi ñëpp ndax bi coulage bi rek ni dafa ci waaye booba bu ñëpp mënoon a daje itam déggandoo ko nii kon it day gën a yaatu ci ñëpp rek waaye kenn ku ne boo delloo ca fa nga bàyyi ko woon jottali leen kàddu yi nga jële fii ak cant yi ak ngërëm yi xam ni sëñ bi daal nee na liggéey bi yéegu kuunu dan koo wéerandi rek noonu ko Cheikh Moustapha waxe ba ca ginnaaw gàmmu ga ba ca ginnaw mbalé mu mujj ma ñu doog ñëwaat nak ci liggéey bi waye diggante bi nak sëriñ baang ngi leen di ñaanal bu baax lépp loo xam ne jàmm la suñu borom yalla nako defal lepp lu ay xewal suñu borom yalla nako defal defal ñu nak ak yagg ndax bu yagg amé jàmm am ami xewal li señ bi bëgg daanaka man lool kon nan fi yàgg nan am jàmm nan ami xéwal bu baax a baax nee jërë ngeen jëf nee sëñ bi daal xolam seet na bu baax a baax kon ñu tàllal suñu loxo rek Seex Sëriñ Seex Faal ngi nii mu ñaanal ñu nee na ñaan gi nag na ñaan gi bëtt suñu biir daj àdduna bépp ne fépp ami xéwal te jàmm ne fa mbas mii nga xam ne moo ne ci àdduna barkeem nee ci barkem barkem jambaram ja sëñ Amdi Fall mum sëñ Modou Mbenda di mam Cheikh Ibrahima Fall yàlla mbass mbas di génn àdduna yëpp ci barkem Cheikh Mouhamadul muntaha mbacke te ni ko fi wutu nak na don ak yer ak xéwal yu yatu ak wërsëgu ne gàññi yo xam ne coono mouride murid ko fatte ba mën a ci seen sago ba kenn ko la nga yéene nga man ko def ci barkeb Cheikh Mamadou falilu Falilou jërëgeen jëf boogu ñaan yow mi doon wax ak ki nga doon wax lo ak ki bëgg ñaan yalla nañ ci sa borom jital ci doole Cheikh rafal ni ñepp da doon seen i dab suñu nee wax ji rafet na lool amin nee non rek la de amin Fall amin Mor Mbay bi kenn ku ne bu ko làmbaroon ñaar fukki dina baaxati suñ Mor Mbay borom ndënd yi ñu ko yor wàll ku ne ñaar fukki di jëli Cheikh Fall barke Serigne Cheikh Ndiaye léegi nii di ñaan amiin amiin Fall amiin amiin La ilaha illallah ngir ngeen di jot video yi am solo yi bàyyeekoo fi ci sen sen daru berefal TV da ngay beus fi ñu bind s'abonner ba noppee nga tek ci kolos bi. aha inna la La ilaha illallah. daaru Bayré Fall TV, la première chaîne qui valorise la vie et de Mam Cheikh Ibrahim Fall.